sëy nuyu naa la. Baye Djili maa lay fay di jaale ci li nga xamante ne moom la ñu bokk génn àdduna suñu papa Double Less. waaw gannaaw baatoon si bilaay bi ne seytaan rajim da naan xaaloo inna ilaahi wa inna ilayhi raadiun rek wax dëgg yàlla suñu papa moom ku ne mën nga koo jaale sa morom wax dëgg yàlla papaay làmb yëpp la woon papaay Sénégal yëpp la woon wax dëgg yàlla waaw ñu koy jaale ñëpp di bokk ñëpp naqar bi di ko bokk ak lu làmb di ko bokk képp koo xam ne yaa ngi nooy rek bokk yow naqar waaw nga toog moom waxtaan wala nga mës a dégganteeg moom. waaw lu mu lu ñu jotaay nag bëriwul nag wax dëgg yàlla lu ñu jotaay bëriwul mais xam naa ne moom wax dëgg yàlla paa boo xam ne ku fonkoon ñi nga xamante ni ay doomam la àndal ku fonkoon ay njabootam lañ ku bëggoon koo xamante ni dëgg nga géewaay rek su amee combat da ciy taxaw sonn ci wax dëgg yàlla waaw. kon daanaka ku ci nekk ci monde làmb rek war na ko mën a jaalante suñu bopp ndax yaakaar naa papa père père les bu génnee àdduna monde làmb gi yëpp ñoo ñàkk. waaw monde lamb ñoo ñàkk ak lu làmb yëpp ñoo ñàkk wax dëgg yàlla ku ne rek mënu ko jaale sa moom li si am solo am solo moom mooy ñu ngi koy ñaanal rek comme ñaan la fi dese suñu borom mi nga xam ne moo am yërmande jéggal mu jéggal ko xaare ko àjjana yi kawe ci barke Seydina Muhammad jërëjëf jërëjëf